sëñ bi Ousmane Mbaye maa ngi lay nuyu. Rewmi FM di la gërëm ci wuyu invitation bi ma fàttali kon yow yaay directeur bu commerce intérieur ci diwaanu Sénégal tey jii ñu waxtaanee tolluwaay jamono ak wàllu jënd ak njaay ci diwaanu Sénégal ndax mën nañu euh, defal situation ci approvisionnement bi euh, marché ci diwaanub Sénégal. waaw euh, mas bi ñu ne njàqare ci njàqare ci wàllu wér-gu-yaram mais njàqare aussi ci wàllu économie su suñuy wax économie di ci jiitu mooy li ñuy dundee ndax ñun euh, moom tànk yaa ngi yor bakkan di war a dund di war a am loo jëfandikoo. Mm-hmm. Euh, loolu it am ay ay njàqare ci at askan bi yëpp. mais noonu it lañ ko jëlee lañ ko joxe solo ba suñu ay kilifa euh, joxuñ ci ndigal ñu liggéey solo ànd ko ak liñ ko koo xam ne dañuy produire. Euh, lu ñuy lekk fii ci réew mi wala mu nekk koo xam ne nii que da koy jéggaani bitim réew di ko indi euh, ñu def ci ay jéego yu am solo ba tax euh, jamono yi may wax ak yéen produit yi ëpp ñuy jëfandikoo mu mel ni ceeb wala diwlin wala suukar wala blé bi ñuy defaree farine wala lait en poudre am nañ ci ay ci réew mi ay stock yoo xam ni mën nañ yore ñaar jëm ñetti weer am na yoo xam sax ëpp na ko hmm. loolu nag xañ na man gàttal waaye it doyul ndax euh, am réew moom lépp ñu jëfandikoo chaque jour ñu jëfandikoo muy am lu ciy wàññeeku. Mm-hmm. donc euh, su fekkee daa am luy wàññeeku it daa am lu koy war a remplacer donc loolu moo tax ma ni li tax ñuy am yaakaar mooy ba fi mu ne nii activités yi ñu ngi continuer li nga xam ne moom la ñuy war a produire ci réew mi chaque jour ñu ngi produire mais li ñu war a jóge bitim réew it ñu koy dugal ci réew mi it mi ngi continuer di ñëw kon tant loolu mi ngi amit xañ na peut-être ah xel mën na mën na dal. waaye dañoo nekk jamono joo xam ne nii li nekk ci réew kenn xamul lan la nit li nekk réew xamuñu lan la ndax tey soo xoolee euh, am na usines yoo xam ne dañu doon liggéey trois quarts tey mënatuñoo liggéey trois quarts ndax euh, liggéey bi ndax mm-hmm. te loolu mën na am jeexital aussi ci produit bi ni mu doon disponible waxee comme ni ko ministre de l'intérieur waxee tey euh, maanaam décision yi état bi jël nga xam décision yi métti la ci askan wi mm-hmm. Mm-hmm. faaw nit di bàyyi xel lu tax ñu jël mesures yooyu nekkul mesures yoo xam ne dañ koy jël ko ngir teg nit ñi coono waaye dañ ko jël ngir maanaam teg nit ñi coono ci lu ci lu gaaw teg nit ñi coono mooy bu ñu mën a xeexee ba jàngoro bi jóge fi ba nekk mën a delluwaat ci sa liggéey. Mm-hmm. loolu nag si amee li muy laaj mooy kenn ku nekk la nga doon yëngu nan ngay mën a réajusté woo noo koy mën a adapté woo par rapport ak maanaam mesures yi nga xam ne état bi jël na ko. Mm-hmm. loolu tey loolu ñu ngi liggéey ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ci biir réew mi ba nga xam ne nii produit yi ñu soxla yëpp doon ko jëlee Dakar di ko yóbbu dans les région c'est vrai que gën na indi ay jafe-jafe ci ñu ko doon yóbbu mais terewul ñi nga adapté mm-hmm. ci situation bu ndax nañ une responsabilité pour que produit boobu fépp ko réew mi ñu ko fa mm-hmm. ñu gis tamit ni même ci marché yi bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy jaayee yu bëri ci produit yooyu léegi ni mu doon doxee doxatul noonu ndaxte am na ay waxtu yak ñuy may clients yi ci Ndakaaru ak ci yeneen gox sax ci biir réew mi loolu yan dogal ngeen ci jël ngir gunge askan wi waaw li ñu ci jël mooy fexe ba ni jamono yi nga xam ni euh, barab yooyu ñu ngi tijji donte jamono la yoo xam ni yaatuwul lool comme nam daan doxee. Mhm. nit ñi fexe ba ajusté wu ba ci jamono lu mu néew néew néew ndax nit ñi dañoo war a gàttal maanaam daje yi ak dox bi dañ ko jéego yi dañ ko war a gàttal ci le ci li nga xam ne nii rek mooy farata lépp loo xam ne nii maanaam nekkul farata ñu bàyyi ko ba beneen yoon loolu li mu laaj ci askan bi mooy. ki nga xam ne mooy daf doon jaay mu mën a adopté wu pour que ci jamono boobu lu mu néew néew néew mu mën ci am ki nga xam ni aussi dafay jënd jamono lu mu néew néew néew mu mën a aju sew ba mën a dem jënd li nga xam ne moom la soxla delluwaat këram toog hmm. donc loolu la ñuy ñaan sénégalais yi mooy que ñu jéem a aju sew te xam ni que tey am na ay réew yoo xam ne nii que li ñu amako si néew ñoom amuñu ko kon li ñu am kon buñ ko bu ñu nañ xam lan la mais it bu mu taxit ñu jàpp ni que dañoo nekk ci maanaam euh, dañoo génn ci la àdduna ñuy doxee ndax soo xoolee fi ne nii dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp chance mooy yi nga xam ne nii am nañ genre propriété partielle maanaam am na lu ñuy tënk ci seen doxin. Mhm. mais am na ay dëkk yoo xam ne dañu leen a tënk complètement bu ne dañoo dox dañ ko moom duñ fa génn. Mhm. kon loolu wax dëgg lu jar a bàyyi xel la euh, li muy euh, fàttali rek mooy ñu xam ne ko li ko waral ñaan yàlla mu del ci jóge ba ku nekk delluwaat ci sa liggéey. Mhm. ci jamono ji ñu tollu nag ak euh, kon mesures yi nga xamante ne état bi jël na ko ñeel état d'urgence bi ak couvre-feu bi ñu bëri di euh, njort wala sax di tiit nii xëy na mun na am yokkute ñuy war a nemmeeku ci njëgu euh, dund gi yenn denrée yi loolu ba xam mun ngeen ci dalal xelu askanu Sénégal. waa li ci dalal xel ñu daal bu baax ndax loolu mooy li nga xam ne kilifa suñu kilifa yi safal ñu ko mooy pexe ba produit bépp ñu soxla ñu mën ko rendre disponible waaye nekk des yàlla it mi ñuy sutural boobu ba léegi euh, suñu agent yi aussi nekk ci marché bi tous les jours di xool du produit déjà chaque jour ñu mën di vérifier les stocks fan la toll ndax di vérifier les stocks fan la toll mooy mën a tax lépp loo xam ne ni ko gis nañ ni mi ngi commencé di manqué rek ñu teel cee taxaw ba nga xam ni que dañu corrigé maanaam manquement boobu balaa muy egg fenn fii waaw loolu it lu ñu jural mooy wax dëgg biscuit yi prix yi ñu ngi nekk ci ay niveau yoo xam ne niveau yu stable la waaye it loolu it dañ ko boole it taxaw taxawaay bu am solo boo xam ne ni képp koo xam bëgg na ci boole ci bopp nit hmm. maanaam soo gëstoo gisuñu sa gannaaw hmm. donc euh, soo ko xoolee ci produit bu xam ne nii que mooy les gels euh, nga xam ne nii que nit ñi lañ ko doon soxla ñu commencé ci gis maanaam euh, yokkute yoo xam ne nii que dara dara maanaam mënu ko woon a maanaam hmm. jël ci arrêté boo xam ne nii moom moo tax ñu tënk prix yi ba fi ne nii kenn mënu ko jaayee arrêté yi prix yi weesu loolu yeneen produit yi nga xam ne dañ koy jéggaane bitim réew te xoolee yu mel ni ay masque ñu koy wax. duñ mhm. bala nga mën a jël ci jar produit bi dañ koy gis produit dañ ko gisatul. léegi amit mooy ñun ñu encouragé sénégalais yi nga xam ne tey mën nañ koo defar ndax defar produit yooyu euh, jafewul sénégalais yi mën ko liggéey fii ci réew mi maanaam alal ñu ngi koy liggéey mën a des ci réew mi donc loolu la ñuy encouragé commencé bi liggéey gis nañ ni sénégalais ñu ngi commencé defar fii ay masque made in Sénégal di fii ci réew mi mu jur alal joo xam ne nii aussi ci waa réew mi lay delluwaat. kon loolu c'est permis dagal nan ngeen ko. waaw dagal nañ ko liñ ci liñ ci tënk rek mooy ñu fexe ba képp ku ci defar mu nekk loo xam ni méngoo na ak norme. Hmm. te ci loolu association sénégalaise normalisation ñu ngi ci liggéey ak ñoom pour am norme boo boo xam ne nii que bëgg nga ci liggéey maanaam nga xam ni que nii la produit bi war a méngool. mu méngoo ak moom pour nga mën ko dugal ci laaj bu mujj bi mooy wàllub mburu mi ak nu nu koy jaayee nu nu koy séddale ngeen jëloon ci ay dogal yi ci mujj ñeel sax ci période coronavirus bi nga xamante ne bokk na ci agrément bi ngeen di sàkku ci distributeurs yi loolu fi ngeen ci toll ci dogal yi ak applicabilité bi ndax am ngeen ci yaakaar. waaw xam nga soo xoolee boulangerie jamono yu wees yëpp dañ ci amoon li ko waral it mooy dafa nekkoon secteur boo xam ni dafa déstructuré complètement déstructuré mooy kenn xamul ci loolu fi ngay teg sa tànk moo mhm. ci amoon boo xam ni kenn xamul lan la biñ ci liggéey ak acteur bi gis ni que suñu bëggee régler problème boulangerie yi faaw ñu maanaam assainir ko maanaam lu ci bëri ci nekk lépp te mbokk ci ñu génne ko ci loolu tax ñu tënk benn projet de décret boo xam ne nii euh, ñi ci liggéey ak ñi ko xam ne noonu lañu ko seqal ñëpp muy boulanger yi association de consommateurs yi liggéey ci pratiquement pendant lu ëpp benn weer ko jëbalee ñi su réew mi Euh, mu daal di xaatim décret boobu le trente et un décembre bu ñu ci jógee ñu liggéey ci benn projet d'arrêté pour mën a jëmmal euh, décret boobu bu ñu paree ci projet d'arrêté bi ñu liggéey ci benn plan d'action de mise en œuvre corona bi ñëw gën ñoo soññ ci loolu ñu war koo baral ndax hmm. corona bi dafa ànd ak maanaam sellal hmm. sellal li euh, ñuy doxale mais sellal tamit li ñuy lekk te mburu moom comme ni ñu koy waxee kenn ko raxas kenn ko hmm. raxas kenn ko togg noonu lañ pour ñu ko ko bëgg a dem dem mën a am boulangerie dañu ko ci commission yi sall ñu gis ni que am na ay pratiques yu bees yu commencé wu maanaam ay ñu jóg di commencé def ay kiosque du leen neexee ñu ñu jóg ñoo xam ñu ngi koy jël sax di ko def ci ay mbuus di ko di ko di ko livré ci kër yi loolu yëpp ñu ni suñ ci suñ ci suñ ci suñ ci liggéeyul euh, xaj na la ñu liggéeyoon ba léegi ci dafay dafay dafay am lu ci des loolu hmm. tax ñu liggéey ci benn projet de décret boo xam ni suñ ko ko kilifa santé jébal ko njiitu réew mi njiitu réew mi jël benn décret euh, conseil des ministres bi passé tey jii rek liggéey nañ ci boulanger yi ce matin ci euh, yeneen euh, exigence yoo xam ni dañ koy jëmal ci projet d'arrêté bi war a jël mën ko accompagner pour maanaam ñu mën a jëmal loolu liñ ci jublu rek mooy fexe ba mburu hmm. ñu koy liggéey ci liggéeyin woo xam ni wu sell la mais it mburu ñu koy distribuer ci condition yoo xam ni condition yu sell la loolu nag pour mun ko am il faut que acteur bu ci nekk ñu xam lan mooy sa ay responsabilité ñu mën a naq natt par rapport ak sa responsabilité yooyu distributeur bu méngawul ak loolu ñu génne la ci secteur bi boulanger boo xam ne aussi méngoowul ak loolu ñu génne secteur bi ci hmm. gàttal loolu mooy solo si loolu am ñu ànd ko aussi liggéey bi ak boulanger yi ak consommateurs yi te am nañ yaakaar ni que tant que ñuy continuer noonu euh, yaakaar nañ nañ ci yàlla nañ ko ne diñu suturaal hmm. jërëjëf Ousmane Mbaye ma fàttali kon yaay directeur bu commerce intérieur ci diwaanu Sénégal Rewmi FM mu lay gërëm jërëjëf jërëjëf ngeen ziar bu baax jërëjëf